dem dem nga rek di wuti di seet pour sa mbir nu mel waa ji di lay seetal jël ay petaaw laal fale laal fale lii laak dana baax ak da danga dem nangam jëmi dem gi rek ñeen fukki fan loo jaamu yàlla yàlla du ko nangu soo ko gëmee nag la mu wax yonent bi neen li ma indi woon yow weddi nga ko jamono ji nag yaakaar naa li gën a bëri ci ji jamono mooy njabarkat yi ak bu xaabakat yi fu may dafa mujj ko promotion ci côté bu nekk ni nga tamit gëmee ko nu nekk ñi cay dem noona yow booy seetlu bañ ne la waaw tey ngay dee loo ci man jërut seet kon te la comme déega mënu koo fànq jërëtul seet yéen dem ci ñoom ak yooyu yëpp tabaarakallaahu li ci ne yëpp sax yéen a ko gën a xam kenn mënu koo wax walaay amul lu gën a riis si àddina doylu ak sàmm sa dignité mhm. nit ki ak ku mën a doon teg ko fa mu la teg mhm. bu la alal jëlal mukk ngay topp si ginnaaw kenn bul xeeblu sa bopp benn yoon si kuy kaw a kaw li sa kanam mhm. lépp lu la nit ëppalee lu dul jëf ju baax jàppal ne ëppalewu la dara mhm. ndax saa yu nelawee fàtte ko su deewee ñàkk ko doylu nag alal la judul jeex soo doyloo cent franc yow moom du tuuti si yow milliard boo moom it du rëy ci yow mhm. nga néew la ak nga bari la santal yàlla sa borom te xam ne yàlla jox na lu sa morom bëgg te am ko mhm. ki la wan ginnaaw ngir àdduna bàyyi ko te dese ak yàlla ki yaakaar ne moo sa àdduna ba tax mënu koo bàyyi bàyyi ko te dese ak yàlla fii bari na fi loo na wénet ak añee wallaahi boo xamoon la ma ñàkk doo ko am di nga xam